fi teew ñëpp di leen ziar di leen baalu di leen masawu coono ah di nuyu kilifa yi fi teew yëpp moo xam ñi fi teew ci cadre familial moo xam ñi fi teew ci cadre politique la moo xam yéen ñii taxaw boobu ba léegi ndax yàlla am na lu mu def sama kilifa ku mu yar kilifa kon nag yéen ñëpp ay kilifa la maa ngi leen di ah kàddu nag xawoon na ma jaaxal ndax ñaar bi ci jiitu mooy ñi fi jot a jaar yaakaar naa li fi farata wax nañ ko ba pare kon nag dañuy safal rek waaye du farata ñaareel bi mooy dañuy célébrer vingt cinq ans au pur te man bokkuma pur looloo tax sànq ñu ne ma est-ce que la jox écharpe ma ne ëpp naa def yéen pur ngeen bokk man kàddu góor gi laa bokk kàddu góor gi laa bokk man monarchie laa ndax koo xam ne lum la wax ci bëccëg balaa ngoon nga gis lum la tegtal balaa ngaa xeb mu taxaw lum la dig balaa àggal jox la ko kooku boo ko dénkee sa lépp di gis jàmm ku sañ te bañ saña te yaakaar naa loolu maag yéen séq nañ ah vingt cinq ans ñi naan vingt cinq ans ñi daan cinquante waaye lépp benn combat ndax jamono dafa dox ñu ne mondialisation ñu ne village planétaire ni fépp benn gay ni waaw kay noonu la de waaye dafa fekk ni plan yi ak subterfuge dafa jafe déceler ndax troisième guerre mondiale bi ñuy tudd ba mu tàmbalee at ci ginnaaw fi mu toll ni ñoo ngi génn phase mondialisation wara dugg ci phase démoralisation xëy na développé ko du fi xaj waaye ci gàttal dafa am ay baat ñu jël bëgg ko naxee nit ñi bi si jiitu di diggante diversion ak divertissement di nga yaakaar ni ñaar yu baat yu bokkul la sauf que dañoo militariser benn bi banaliser ba ca des waaye ñaar yëpp benn te mooy tegal la lu la nax ba dootoo taal sa farata mooy lan seetaan nga série bi démb diw dee lim def waaye match bi gis nga diw action bi nangam ak nangam waaw loolu lañ bëgg ngeen wax ci waaye réew mi fii la toll lii la soxla lii mooy suñu taxawaay bëgguñu ngeen xalaat ko mukk ngeen xalaat ndax boo leen ko xalaatee di ngeen xam ni ñi ngeen fi teg defaluñ leen dara dara bàyyiwu leen fi lu seen bopp ak seen poos ndax ku fi mës toog la ngay njëkk liggéey ba nga toogee mooy kër goo uti extérieur nga xam ni dangay lekk li ngay rekk rek daw nga xam ni ñooñu le peuple sénégalais bàyyiwul lañu leen fi bi ci des dañ leen di jaawaleloo liberté ak libertinage lan mooy libertinage lu ma neex def je suis libre dara waruma cee fekk loolu mooy libertinage liberté d'accord lu la neex def waaye conséquence bu ca am yaay gàddu kon nag balaa ngaa wax xool la ca fekk balaa ngaa jëf xool la ca fekk balaa ngaa attaqué kenn xam lu la ca fekk yu mel noonu yu mel noonu dañuy jël di leen ko fooye di leen ko fooye ba dugg ci biir kër yi fexe ba góor talatul nekku góor fexe ba jigéen talatul lu dul wujj fexe ba xale talatul lu dul ay caaxaan lii mooy troisième guerre mondiale bataay bii la góor gi di xel ay at ci ginnaaw lii mooy combat tax nag il faut faire attention dal xel teel te wax dëgg neex yàlla xaju moo tax suñu mbokk waay yeewi askan wi dañ leen di encourage dëgg la ndax nag les choses ne font que commencer ku yaakaar ni tàng na léegi gisagoo li ci kanam ku yaakaar ni caay-caay gi génn na gisagoo ci kanam waaye nag sutura yàlla ak barke kilifa leneen nag leneen nag dañ koy waxtaan mag sama mbokku Pape Cheikh bi ci sëñ Ousmane bi bis bu nekk mun naa maan bi ko gars yi di def bi ko gars yi di def mu ne ko waaw c'est très normal mu ne ko xam nga lu tax mun a mu ne ko ñun bañ cay jaar kañ la moom sax moo ñu ëpp chance ndax combat sénégalais yi teg nañ ci seen bët ndax won nañ leen waaye ñun bañ ñuy teg lañ ñuy teg di ko nëbb di ko di ko di ko déformer di ñu sosal loolu kañ la ak ku wax moo tax taxaw rekk taxaw rek te ñeme mbir bi ndax ce n'est pas une question de personne c'est une question de population c'est une question de civilisation c'est une question d'intérêt général c'est une question des Sénégalais c'est très important moo tax ku yabu bàyyi xel yu ku yabu gën a taxaw ku yabu am sa conviction am sa ngëm-ngëm am sa pas-pas ak foo mën ci bokk nag ndax bokk fenn moo gën taxawal bokk fenn moo gën taxawal ah xaddu yi jarul guddal lii farata yëpp kilifa yi wax na xëy na nag kàddu cant yu ñuy yóbbante xëy na dañ ciy dugalaale suñuy cant ci bopp bi ci jiitu bi ci jiitu bi ci suñu mbokk Cheikh Youm ndax wax dëgg neex yàlla fu ñuy yëg ni moo nga fa suñu xel sañ dal ndax xam ni graine bi suñu kilifa planté ci moom meññ na nam war a meññ yal na yàlla xepp doon ah di sant di nuyu di gërëm di jàpp di ñaanal suñuy frère yi ñuy tëral te defuñu dara muy Massata ak Ahmed Niang ñi fi teew ñëpp ak ñi seetaan ñëpp moo xam d'accord moo xam d'accord moo xam gëm moo xam gëmul ñoom fa ñu tëdd sénégalais yëpp lañ fa tëdd lan moo tax keneen ku mu nekkoon yow keneen ku mu nekkoon sa kilifa di nga def action ba ñu def te kon liñ leen teg dañ la dañ la ko teg comme am nañ fu ñu bokk rek ñu bëgg ko moomale leen ainsi va Sénégal waaye du lu bon ñooñu suñuy frère dëgg na suñuy frère ci deret la ndax ñoo bokk naaj suñuy frère ci conviction la ndax ñoo bokk lu ñu gëm suñuy frère lañ ci xol ndax suñu pas-pas moo nekk seen xol kon nag ñoo leen di sant di leen nuyu di leen gërëm dara dàqulu ma ba ma leen fekkee seeti leen dama bëgg yàlla xam na ndax maa ngi leen di fekk ñu siggi ubbi seen dënn ne ma yëguñu dara dara métti bu démb doon tey lañu defoon lañuy defar kon dàq ci àdduna sa li nga war def na sa digganteeg say moroom li nga war def na sa digganteeg sa boroom li la war def na ko mag na na yàlla na yàlla xeeb dolli yàlla yàlla xeeb dolli yàlla yàlla xeeb dolli ak xanaa nag xëy na foofu xëy na dinaa fa dugal plainte bu ndaw te mooy bu ñu génnee foog mu dugal leen saalu box ndax kuuy dese naa dama dama ne kuuy dese naa dal ndax amoon na civilisation boo xam ne seen université ci biir amphithéâtre bi dañuy am arène arène bi pour lan ñaar ñuy discuter idée dañuy jongante ci xam-xam bu ñu demee ba mu wóor la ni seen argument yi jeex na ñu summeeku taxaw parce que li ñu gëmoon mooy nit ki sa conviction sa xam-xam ak sa ngëm-ngëm dafay manifesté ci sa ci sa jëmm te kon nag bu ñu demee ba làmmiñ yi mënatul na yaram yi taxaw moo tax ma ne kuy yi des naa dal ndax ñoom li seen xol xam naa ko bu daloon day tas ah yaa ma defa kàddu gudd na ba pare coono yi bëri na yi fees ah te xam naa sama mbokku ñëwee yeeg ñaayam dañoo xaw a ragal seen kon nag ah di si def ñaar def ko taxawal yéen